jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. dal leen ak jàmm amee site internet 5M TV Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek patriote bi di wuyee tur Baye dëkk ca commune bu Tivaouane daal di nay génte rek niki tey doomam bu góor bi daal di koy tuddee kii di président Ousmane Sonko niki démb ci àllarba ji nag yem ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre jamono ji nag képp koo xamante ne ab patriote nga rek nouvelle bu nu mel daal dina lay neex ba tax na nag da ngay mu daal di tuddee kii di Ousmane Sonko rek ab tout tànkam doom ji yàlla na dund te barke yàlla sàmm ko aar ko moom Seydina Ousmane Sonko mu sell mi doon doom ci kii di Baye Dame Ka ca Tiwaawoon jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification ngir amaat yeneen info